mu ngi noonu ah di leen jaajëfal bu baax yéen ñuy topp fii ci Leewtoo TV tey 27 mars ñu ngi fii arène nationale kan moo woote Fallou Ndiaye borom Ndiaye production daal di tëgg la lutte simple teg ci nga xam ne mooy mise 4 millions kon samay cameraman dañuy daal dugg rek ci biir arène bi xoolal moo fi nekk ambiance daal di ko tegal la Fallou Ndiaye moo woote daa defi teg mise 4 millions gis nañ arène nationale nu mel mu nga fees dell ah gars yi nañu làmb ba tax na tey jii ku namoon làmb rek di nga doyoo sëg daagu ndànk rek dem ci mbéyam lu xool lan lay woyal gars yi ah di def ambiance moo nekk ci caméra bi la kooku lum caméra wul baaxu barke Serigne Touba moo noonu mbéyam lu mooy woy mbéyam lu mbéyam lu moom lu woyal daal moom baaxul mu ngi noonu noonu nag làmb lañ wax de lu simple culture 100 pour cent loolu ñoo ko moom ah su ñu làmb simple rek dañ koy gis euh, lu nekk nga xoolal ma sama gars yi dañuy tëgg nii rek bëri di jaayu seen xol di sedd dara ma sama tëggkat yu ñaawul yooyu simple lañ wax Fallou Ndiaye moo tëgg làmb ji dara ci teg li nga ne mooy mise 4 millions mbëri war fay ñëw jaayante jël li nga xam te ne nii mooy gros di jël gros loo bi dem yoon la c'est le bon mu ngi nii Mbaye Babacar waa Zowal nuyu naa leen bu baax ah Assane Waalo nuyu naa leen bu baax mañ pro nee la nam naa sama cameraman boobu lu simple la ba léegi yaakaar naa ne gis naa fi ku ci mel ni Libidor moo ngi ci làmb ji ku ci mel ni maa ko fii gis ak yeneen mbër mooy Fallou Ndiaye nuyu naa la. Adja maa ngi lay fay. relation ak Fallou Ndiaye. non Fallou suma xarit la suma doomu ndey la. barki démb lañ jógee Gambie def fa benn mbapat bu neex. ñoo ngi waat nii Télé 10 aussi en même temps dañoo fas yéene teg benn mise su 10 millions. wala sax 11 millions même loolu sax mën nañ ko yokk. président mi ngi ni Pape Abdou Fall xam nga moom kenn du moom xam lu ma la aussi jàpp na si ama man sax waruma wax moom sax moo war wax quoi. waaw ah, mu noonu rek promoteur mag bàyyi noonu. waaw ma nuyu ko. ginnaaw bañ la nuyu. nuyu nañ naa leen ana waa Leewtoo suma xarit. bàyyi nañ ci jàmm. waaw. waaw rafet sant yàlla xam nga woote wuy si la moom gor gu ne moom ngay ñaan yàlla alhamdulilahi rabbil alamin que fees na rafet na jeunesse bi gis nañ ci seen bopp amateur yi gis ci seen bopp ñi ne ci wetu koom bi gis ci seen bopp yéen ñi nga xam ne yéen ay journaliste ngeen ak ay reporter yi gis ngeen ci seen bopp boo leen ci gisul woon seen bopp yéenay njëkk a wax kon nag sant yàlla ana Taalis mu ngi ci jàmm. waaw fu mu toll ci Boy ñaa ak Tapha Tine mu ngi waaj. suba incha allah dañuy def face à face fekk Joal Fadiouth. foofan la. Joal yàlla na ko ah yàlla na ko yàlla mottali yàlla may ko ci ndam te it ndam la ci am. yow fan man nag tollooguma fenn point mort. point mort. temps joxe ak ministre Matar Ba bu ñu ubbi làmb semaine bee amoon na bëre simple tey tam mu am bëre simple tey bés bi nag Fallou Ndiaye jël ko tuddee ko ñu ànd ak suñu ay kilifa ñoom Papa El Hadj Papa Dieng Yafa Diallo suñu xarit ak amateurs yëpp tey amateur bureau amateur yëpp ñëw muy. lutte bee beeg bi ñëpp ñëw tey si bés bi xam ne Fallou Ndiaye daf ñu delloo njukkal kon loolu dañ koy si gërëm di ko sant moo war a tey ñëpp ñëw si làmb ji. lan ngay wax ah, Fallou Ndiaye. gërëm ko parce que Fallou Ndiaye amateur la donc euh, dafa jëlal amateur parce moom amateur la promoteur dañ leen di gërëm di leen sant parce que ay amateur lañu bu ñu jëlee seen xaalis ànd ak Pape Abdou Fall di investir si làmb ñoom Dieye ñoom euh, Laxaat Ndiaye ñëpp di investir. tey gis nga seen mag Gaston Mbengue ñëw na nga xam ne la carte fii lay tëggee làmb ci dal de guerre Amath euh, ak ki nga xam ne mooy Diène Kaïré ak euh, Modou Anta kon nga xam ne làmb dekki na suba sëñ mooru ñaar dina tëgg fii incha allah tamit mooy wane ne daal làmb ngi dekki ñun ñëpp dañuy ñëw rek di seetaan la parce que ñun amateur làmb rek la bëgg amateur bëggul leneen lu làmb mais kontaan naa trop yéen tamit maa ngi leen di Euh, yàlla jàppale leen seen site bi ngeen am vie yu bëri. ki ko tuddee moo tax du jànjee ko président des amateurs muy sama rakk di sama xarit yëgal ma ko ma ànd ak moom gunge ko pour ñëw ci làmb ji te it euh, gërëm Fallou njaay mi ko tuddee làmb ji gërëm amateur yëpp ndax tamit amateur yi buñ ne làmb amateur tax te tey gis nga amateur yi ni ñu fi bare kon bu ñu invité seen président amateur yëpp war a ñëw loolu moo tax ma ànd ak moom. ci bës bu nga xam ne dañ ko ko tuddee muy presque première journée bi ñu tëgg après confinement bi ci arène nationale bi tudd ko du jànjeek ko loolu moom feeñ. ngeen namoon làmb namoon làmb ñu doog presque at bëreew ñu nga dugg gis bi mel nii lan nga yëg. non mbégte rek ndax làmb dafa nekk po moo xam ni boo ko tëjee da ngay wàññi bànneexu supporter yu bari ndax ñu ko bëgg dañu bari gis nga ni mu mel ni mu feese waaye damay fàttali nit ñi. tamit ñu leen nañu respecté mesures barrières yi yow mi waroon nga sol masque normalement voilà waaw parce que bi am na solo trop du la teree liggéey waane bés bi am na solo trop wax waane lu ko gën a amal solo mooy presse ndax presse bi tamit li muy liggéey ci organisation yi dafa am solo donc cër bu ñu leen jox rek war nañ ko yokk ndax message yi ñoo koy passé information yi ñoo koy passé donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci liggéey bi ngeen di def ci làmb ji et particulièrement surtout nag ci combat yi nga xam ne ay bëre simple lañu ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. ok damay sant rek combat le 4 avril Eumeu Sène Lac de Guiers 2 mooy favori. non amul favori amul favori parce ñoom ñaar ñëpp xam nañ ne amul favori ku ci nekk xam na ni sama rom mën na laa daan donc ku ëpp pas ak gëm-gëm ak état physique ak moral ak mental mooy daan loolu nag mënuñu ko xam il faut làmb ji commencé ba ñu commencé bëree ñu xool ku ci nekk bëree bi nga indi ak li nga bëree ñu seet ndax mën na la indil dara wala déet donc loolu bu làmb ji commencé ba ñu commencé léewtoo ci lañ koy xamee. jërëjëf képp nga fi gis waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Leewtoo yëpp mais Pape Thiass lu ko dal. ci lan Pape Thiass ko dal. ci lan li ma la lay sànq. yóbbu nga la wax ko ko. Pape Thiass la moo la dal sama gars yi nga jàpp rek di leen kii rek. lan lan mooy sa taxawaay. a ko xam xool tey la ndax gars yi ñu ngi koy respecté c'est normal ñëw xool aussi pour gën a encourager xale yi ñu respecté mesures yi xam ne làmb ji bu tëjee suñ avant du suñu avantage ñun ñun ñu bëgg làmb te xale yi mooy seen métier mooy seen passion ci lañuy am seen gagne-pain seen normal aussi ñu ñëw accompagner leen encouragé encouragé leen en aussi social en tant sportif ak mbër. man maa ngi préparé sama combat ak El Hadj col tong tong ñoom ñool ko moom ak suñu paree aussi dem Côte d'Ivoire am na lu ñu koy waajal aussi waaw loolu. mbër boo ko xoolee di nga xam ndax pare na wala. ñeme na la daal ñeme na musibaam. dina ko dara. dañuy ñëw seese la daal di waxtaan ak yow bu waxtaan yu bëree bëri bëri bu ngi doon